fanweer ak ñeent yoon ci biir géej gi salaamaaleykum mbokki déglukat yi mu ngi leen di nuyu ci turu yàlla boroom jàmm ji bëgg ñépp dégg te nangu yoonu njub bi mu tëral ngir am jàmm ju wér ak moom ba faaw am na nanu mbégte ci li nu mën a dellu si tey ngir dégtal leen seen émission yoonu njub ci njàng mi weesu gisoon nanu ni yàlla goreele bànni israel ci seen njaam jaarale ko ci li mu fàddoon taaw yi ci kër waa misra yépp waaye mu musal taawi bànni israel yi ci dee ndax deretu mbote ma ñu taxaloon ci seen buntu kër ndax tey yàlla moom ci boppam ne woon na deret ji nekk ci seen buntu kër xàmmeekaay lay doon ngir yéen bu ma gisee deret ji dinaa leen teggi te musiba du leen dal naka noonu ci guddi googu bani israel yépp gàddaayoon nañu misira ci lu wér guddik teggi googu guddik mbégte mu rëy la woon ci ñoom xalaat leen ci diirub ñeenti téeméeri at ñu nekk ko ay jaam ñeenti téeméeri at yoo xam ne waa misira doon nañu leen fitnaal di leen sonal lool ci liggéey bu metti ba amatuñu benn bànneex waaye léegi léegi gore nañu ci guddi googu di bésu tegg ba yàlla aji sax ji goreloon na leen seen buumi njaam dagg na te léegi yàlla diggoon na womat leen ci biir màndik ma ba delloo leen kanaan réew mi nga xam ne moom la yàlla giñaloon askanu ibrahima isaaxa ak ba bu yàgg kanaan mooy réew mi ba ak i doomam dëkkoon laata ñuy toxu ca misira ngir dëkk ak yusufa tey jii nag réew moomu israel la tudd léegi nag danu fas yéene déglu nettali bu doy waar te yéeme ci mbirum ni yàlla laate bànni israel ci loxoy na lu ëpp ci li nu wara jàng tey mu ngi nekk ci tawret ci téereb gàddaay ga ci saar fukk ak ñeent mbind mi neena noonu nag bànni israel jóge ramses ca misira jëm sukot tollu woon nañu ci juróom benn téeméeri junniy góor limaalewuñu ca jigéen ña ak gune ya te ñeneen nit ñu bare ànd nañu ak ñoom ak jur gu gàtt ak gu gudd te def coggal yu bare musa daldi yóbbaale yaxi yusufa ndaxte yusufa giñloo woon na bànni israel ne leen faaw yàlla nemeeku leen te bu loolu amee nangeen jële fi sama yax yóbbaale leen aji sax ji moom ci boppam moo leen di jiite nekk ci aw niir bu bëccëgee ngir won leen yoon wi bu guddee mu nekk ci biir jumu safara ngir leeral leen ñuy dox guddi ak bëccëg niir wi mësula jóge ci bopp mbooloo ma bëccëg ni jumu safara ba it bu guddee noonu aji sax ji ne musa neel bànni israel ñu wëlbatiku dal ca tefesu géej gu xonq ga noonu na dina xalaat ne bànni israel gëlëm nañu ca àll ba ba ca màndiŋ ma dinaa def ba xolu na di bañ mu topp leen bu ko defee dinaa jollil sama ndam ci kaw na ak ay xarekatam te waa misra ñu xam ne maay aji sax ji noonu nag ñu daldi def li aji sax ji digle ba ñu yëgalee buuru misra ne mbooloo ma daw na firawna ak i dagam soppi seen xalaat ci mbirum mbooloo ma ñu daldi ne li nu def mooy lan ba yeewi israel ci njaam gi noonu na takk sareti xare ànd ak ay xarekatam mu jël juróom benn téeméeri saret yu gën a dëgër bu ci nekk def ci ay njiiti xare ak sareti misra yépp noonu waa misra ak fas yi ak sareti na yépp ak i gawaram ak i xeetam topp leen dab leen fa ñu dal ca tefesu géej gu xonq ga bi leen firaw na jub bànni israel séentu gis ne waa misra ngi leen di topp bi ñu ko defee nag bànni israel di ragal di yuuxu di woo aji sax ji ñu nga naan musa ndax misra dafa amul woon ay sëg ba nga indi nu ci màndig mi ngir nu dee nu defal ba nga nu génne misra ba noppi xanaa newunu la woon ca misra bàyyi ci njaam gi jaamu waa misra nu gënal dee ci màndik mi lan la bànni israel doon wax noonu lu tax ñuy xultu ndax yàlla mi leen goreel ci seen buumi njaam mënu leen woon musalaat ci xarekati firawna aha kay wante bànni israel xalaatuñu woon ci loolu ndax tiitaange géej gaa ngi woon ci seen kanam tund yi féete leen ndeyjoor ak càmmooñ te ci seen gannaaw xarekati firaw na yaa ngi doon ñëw ngir jàppaat leen wala rey leen sax lan lañu waroon a def nag lan lañu mënoon a def naka lañu mënoon a mucce nanu déglu li leen musa waxoon ak li leen yàlla defal musa ne mbooloo ma bu leen ragal dalal leen seen xel te gis mucc gi leen aji sax ji defal tey waa misira gii ngeen di gis tey jii dootu leen leen gis gisati mukk aji sax ji moo leen di xeexal waaye yéen neeleen tekk rekk noonu aji sax ji ne musa lu waral yuuxu yi neel bànni israel ñu jubal seen yoon jëlal sa yat te tiimale ko ci géej gi xàll ko ba bànni israel jaar ci suuf su wow man dinaa def ba xol waa misra di bañ ngir ñu dugg topp leen bu defee dinaa jollil sama ndam ci kaw firawna ak i aki saretam aki gawaram noonu waa misra dinañu xam ne maay aji sax ji malaakam yàlla mi jiitu woon nekk ca kanamu dalu israel daldi dem féete ko gannaawam dox diggante dalu waa misra ak bu israel niir wa ci gi wet di leeral guddi ga ca wet ga ca des noonu ñaari dal yi jege yowuñu benn yoon ci guddi gépp gannaaw loolu musa daldi tàllal loxoom tiimale ko ci géej gi aji sax ji wolloo ngelawu penk lu metti mu dàq géej gi guddi gépp ba suuf su wow feeñ ndox ma xaajali ko noonu bànni israel jaar ci diggu géej gi di dox ci suuf su ndox mi séq leen ndeyjoor ak càmmooñ di leen aar bi ñu ko defee waa misira dàq leen jaar ci géej gi fasi firawna ak i saretam ak i gawram yépp ca fajar aji sax ji tollu ci biir niir wa ak safara sa xool sareti misira daldi leen tasaare mu daldi ngirool saret yi ba dox bi jafe lool noonu waa misira ne nanu daw israel ndaxte aji sax ji moo leen di xeexal seen diggante ak waa misira gannaaw loolu aji sax ji ne musa tàllalal sa loxo tiimale ko ci géej gi ndox mi dellusi ci waa misira ak seeni saret ak seeni gawar musa daldi tàllal loxoom tiimale ko ci géej gi laata bët di set géej ga dellu fa mu nekkoon waa misira di ko daw waaye aji sax ji bëmax leen ci biir ndox ma dellusi si mëdd saret yi ak gawar yi ak xarekati na yi duggoon ci géej gi di topp bani israel kenn rëcc ci waaye bani israel ñoom jàll nañu ci suuf su wow koŋ ci biir géej gi ndox mi séq leen ci ndeyjoor ak ci seen càmmoñ di leen aar ca bés booba la aji sax ji xeetali israel ci loxob waa misira te ñu seen néewi waa misira ca tefes ga bi ñu gisee nag ni kàttanu loxob aji sax ji jëfe digganteem ak waa misra ñu daldi ko ragal te wóolu ko moom ak musa jaamam noonu musa ak bànni israel woy woy wii jagleel ko aji sax ji ñu ngi naan dinaa woy borom bi ndaxte moo am ndam lu rëy sama doole ak sama woy mooy yàlla aji sax ji ndax moo ma musal noonu ñu tàmbalee woy di sant yàlla te di ko gërëm ndax mucc gu rëy gi mu leen defal maryaama doomu ndeyu aarona ak musa jël ndënd mi te jigéen ñépp génn topp ko di tëgg di woy ak di fecc maryaama ngi doon dëbbe naan woy leen borom bi moo am ndam lu rëy fas ak gawar lépp la boole sànni géej amin mbokk yi loolu mooy nettali bi wér te yéeme ci lu jëm ci ni yàlla xàllale yoonu géej bànni israel léegi nag nan lanu mën a jeexale sunu njàngum tey xanaa ak benn laaj bu yomb laaj bi mooy kana mënoon musal bànni israel ci xarekati na ndax mënoon nañu musal seen bopp gis nanu ni géej gi nekke woon ci seen kanam tund ya féete woon leen itam ci ndeyjoor ak càmmooñ te xarekati firawna yi nekk ci seen gannaaw ndax bànni israel mënoon nañu musal seen bopp ndax mënoon nañu feral géej gi wala ñu maasale tund yi mbaa ñu jànkoonte ak xarekati firawna mukk ku leen mënoon a musal nag kan moo leen xalal géej gi lenn tont rekk moo am muy yàlla dong yàlla rekkaloon mënoon a musal loolo taxoon muusa ne leen bu leen ragal dalal leen seen xel te gis mucc gi leen aji sax ji di defal tey te looloo taxoon it gannaaw ba ñu eggee ca geneen wàllu géej ga ñuy woy naan sama doole ak sama woy mooy yàlla aji sax ji ndax moo ma musal bana israel ñoom mënuñu woon def dara ngir musal seen bopp ci xarekati na dara lu dul jaar ci yoon wi leen yàlla ubbiloon ci biir géej gi te gannaaw loolu gërëm ko te màggal ko ci li mu leen musal ci dee mbokki déglukat yi yàlla dafa bëgg ñépp xam ne doomi aadama yépp dañoo mel ni bànni israel ni ñoom nun tamit amunu jenn yaakaar rëcc musiba mu rëy mi nar a wàcc ci sunu kaw ci kanam tuuti su fekkee ne yàlla musalunu ci xëy na géej gi nekkul ci sunu kanam wante dee ak safara ñu ngi fi xanaa tund yi itam nekkuñu ci suñuy wet waaye selaayu yàllaa ngi fi ngir daanu te na ak xarekatam nekkuñu ci suñu gannaaw waaye nootaangeek seytaane ak sunuy bàkkaar dañu nu bëgg a sànk ba faaw kan moo mën a musal doomi aadama ci àtteb yàlla bu jub kan moo mën a musal bàkkaarkat yi ci safara su dul fay si kan moo mën a musal nit ci doolay seytaane ku nu mën a musal ci loolu lépp ku nu mën a yóbbu ci weneen wàllu sunu géeju bàkkaar te tàbbal ci béréb bu sel bi tudd ajana yàlla dong yàlla rekk nu mën a musal nit amul menn pexe ngir musal boppam wala musal ñeneen moom la mbind mi yëgle naan ci yiwu yàlla ngeen mucce ci kaw ngëm te loolu jógewul ci yéen mayu yàlla la du peyu jëf ngir kenn du ci kañu yàlla mi bare yarmande ubbil na doomi aadama yoonu mucc ngir musal leen ci dooley seytaane ak bàkkaar ak safara yàlla dafa bëgg nga rëcc ci àtte ba muy taal bu yanj bi wara lakk ñépp ñi dee ci seeni bàkkaar waaye fokk nga jaar ci yoonu mucc wi yàlla ubbil yow miy déglu tey ndax xam nga yoonu mucc wi yàlla ubbil ngir nga mën a rëcc ci dooley seytaane ak peyu bàkkaar ak mbugalu safara si ndax yaa ngi ci yoonu njub wi yàlla tëral ngir nga mën a texe ci jataayam bu sell bi ba faaw yoon woowu yàlla indi ajuwul ci jëf yu rafet yi nit ñi mën a def te ajuwul ci sàmm sarti diine ndaxte yàlla nee na jub payu jëf ngir kenn du ci kañu lan mooy yoonu mucc wi yàlla tëral nag mooy yoonu ramukat bu sell bi jóge asamaan ngir dee te dekki ngir yeewi képp ku ko gëm ci nun ñi meloon ni ay jaam ndax dooley bàkkaar ak ragala mbind mu sell mi wax na ci mbiru musalkat bu am doole boobu ne mucc amul ci keneen ndaxte ci ron asamaan amul weneen tur wu ñu maye ci nit ñi wunu wara mucce waaw yàlla ubbil na la yoon ci biir géeju bàkkaar ngir nga mën a rëcc ci mbugalu bàkkaar yóbbu la ca weneen wàllu géej gi maanaam ci jataayu yàlla bu sell bi waaye fokk nga jaar ci yoon woowu la yàlla ubbil nag déglul li ramukat bi wax ci loolu mu ne man maay yoon wi dëgg gi ak dund gi kenn du ñëw ci yàlla te jaarul ci man ci dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax ku dégg sama kàddu te gëm ki ma yónni am nga dund gu dul jeex te doo jaar ca àtte ba ndax te génn nga ci dee tàbbi ci dund léegi nag mbokki déglukat yi sunu jotu tey jeex na ci njàng bi di ñëw bu soobee borom bi dinanu gis ni yàlla toppatoo woon bànni israel ca biir màndik ma waaye su fekkee ne am ngeen laaj ci li nu jàng tey bind leen nu ci yoonu njub boîte postale 370 saint yoonu njub pp Saint-Louis kon ba émission bi ñëw yàlla na leen yàlla barkeel te ngeen xalaat ci li mbind mi tekki bi mu naan ci yiwu yàlla ngeen mucce ci kaw ngëm te loolu jógewul ci yéen mayu yàlla la du payu jëf ngir kenn du ci kañu